salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum woowaa yenn ñi toog scotché wu seen gannaaw TV di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay euh, tee nag ñu am mbégte ak contentement di dalal koo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci hip hop Galsen muy El Messia El Messia na ko waar. yaa asalaamaaleykum euh, all world maa leen di ziar kenn ku ci nekk ci sa tur ak sant Isa El Messia ma ne wuraab cegin ma ñaam. di euh, bëggee avant tout ki nga xamante ne nii mooy euh, Passima Fierté Saloum am from saalum am réel Saloum saalum sew di bëggee yow bi nga xamante ni génn yow laa seexal te émission bi xam nga téléspectateur yi man beeg ñëpp waaw Barham gars yi xam nga Moustapha ak Pape Samba Thiam euh, le gars de TFM gars yëpp maa la ñuy bëggee ah Wouda Thiege. yeah for real El Messia. le nom d'abord pourquoi El Messia. waaw bon euh, El Messia ah, El Messia ah, boo ko déggee maa lay wax na la da nga bëgg xam lu waral sama neem yàgg nga di laaj Messi bi ci biir game am na ci góor am na ci foot mais bi nekk ci hip hop maa ko moom da nga bëgg a xam luy El Messia ah, Messi foo ko dégg xel daj Allah jëlal ëbbi tëb teg ko ci ginnaaw el am le soppi abi e tur bu sell su boobaa le Messi ngay am le Messi le sauveur le sauveur c'est le prophète waaw le prophète c'est le messager d'Allah le messager d'Allah c'est Mohamed alayhi salaatu wasalaam man Mohamed la may tuddee direct sama carte d'identité sax rasul daf cee nekk pour dire vrai quoi. mais mais fan nga teg ne yow yaay yow yaay yow yaay du hip hop galsen. non quand je que c' moi le prophète du hip hop galsen actuellement nii gars yi mënuñ koo gëm pourquoi parce que bon je viens juste de débuter ma carrière musicale. c' à prouver loolu noonu. te man maa doon koo xamante ne nii lépp loo xam ne dama ci dama ko dama ko wax dans la vie dama koy prouver ci kàttanu borom bi. ba ñëpp teg ci seen bët bi. yow daal gis nga ne yaay yaay yaay yónanti gaal seen. instant bi quoi yónanti hip hop gaal waaw loolu moom bi di la fanaan. d' accord kon ñu nangu loolu noonu ñëw ci nga xam te ne mooy tes débuts dans le hip hop gaal seen kañ nga débuté rap ak naka nga débuté ci hip hop lan moo la dugal ci hip hop. voilà li nga xamante ni moom a dugal ci hip hop euh, comme je le dis waaw euh, boo déggee El Messia ah, ba tey naa ko bamtuwaat euh, le messi le sauveur le sauveur xam nga le prophète le messager bon nous sommes des porteurs de voix d' abord li ma ci dugal mooy sensibiliser quoi. waaw sensibiliser. li ma dugal ci hip hop dara lu dul sensibiliser. parce que kenn ku ci nekk am na loo xam ne suñu borom may na la ko. te li mu la may mën nga cee peut-être dimbale doomu aadama yi. mën nga am foo waxee ak ñoom parce que ñu dégg la euh, d'une part quoi. waaw parce que am na euh, genre boo déglee Cheikh mu saaka mi ngi wax naan li may nelaw nelaw du teem a yeete li may gëlëm gëlëm du teem a woote amana kuy nelaw ngir bëgg a réer mais bu déggee woote mën na bañ a yàndoor kon peut-être euh, néew néew li ma yàlla may. jóg naa pour sensibiliser nit ñi xam nga. bégal leen surtout parce que aussi la musique aussi c' est l' art de combiner les sons de façon agréable à l'oreille peut être musique bu yeetewul béglewul amul njëriñ waaw man kon suis là pour sensibiliser. pour béglee xam nga. mais mais mais kan bi aussi mais ma gis la nga téye kan nii. waaw kan bi kan moom ci lu muy dox moom. waaw bon il nag c' est l' à la kaana ah. Hmm. waaw ku ma xam-xam ne kan gi mooy loolu noonu. la nuit quand je marche sax boo ma séenee boo gisee kan rek mooy il Messia la amul weerante. Hmm. waaw on di souvent que Samba Peuzzi waaw moom xiir gi la yor. Mm. waaw na ko El Messia moom kaan gi la yor. Mm. ñuy daw ma leen koy ruux waaw. Ah, mais kaan gi moom lan mooy spécialité am lan moo tax nga taamu ci kaan. waaw pourquoi ma taamu ci kaan c'est parce que tout simplement dafa doon loo xamante ne nii kii moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a ruuxee secret set bu Ngaaka Blindé waaw. kaan gi eh, moo gën a ruuxee. secret set bu Ngaaka Blindé waaw waaw respect Ngaaka foofu ok amul problème loolu dinañ ci ñëw incha allah. Euh, ñu gis ni euh, tu as débuté dans le milieu hip hop. vraiment tu as fait pas mal de réalisation ci réalisation yi na nga ci def yan produit nga jot amagum sur le marché wala lan ak lan nga defagum actuellement nii ci game bi. ok bon euh, actuellement nii nag boo xoolee El Messia moo doon koo xamante ni nii juste am naa benn genre reconnaissance boo xamante ni ak benn affinité ak artistes yu mag bon ak public bi xam nañ ma mais jusqu'à présent amaguma benn projet boo xamante ni génne naa ko lancé ko sur le marché. Mhm. peut-être yàlla mooy dimbale doomu aadama. Mhm. à travers samay euh, single yoo xamante ni jël naa ko lancé ko sur le mhm. yi nga njëkk gis yëpp man la pour voir que ne xam nga prouver que ne teg naa ko sur le marché. mais yow toj nga YouTube te amagoo benn. benn vidéo am 10 000 vues. ah mais kon naka nga tojee YouTube El Messia. bon nan tojee YouTube mooy que euh, c'est pour juste pour te faire euh, comprendre que. YouTube bu fekkante ni danga nga koo toj dëgg. waaw ah. boo tojee YouTube dëgg boo tapee sa sa nom. Hmm. juste boo tapee sa nom da nga war a saf sapp si YouTube bi de un da nga war a romb 5000 vues si YouTube bi man romb naa 10 000 vues si YouTube bi tu me parles toj naa ma 10 000 vues si YouTube man boo duggee sama chaîne YouTube di nga ci gis plus de 10 000 vues. benn vidéo. non pas benn vidéo sama benn vidéo. am non El Messia benn vidéo amagoo benn vidéo bu am 10 000 vues. non non amagoo benn vidéo bu amul man sama vidéo yi. six mille vues la. waaw tu vois six mille vues quoi. on parle de deux millions de vues euh, instant bii ñu mën a jàppee ñu mën a jàppee yow li ñu am na loo xam ne bul ko jaawale. Mhm. man yëkkateeguma benn principe teg ko. Mhm. wala benn objectif teg ko boo xamante ne nii pare naa pour am deux millions de vues man. chaque personne a ses principes. Mhm. man dama doon artiste boo xamante ni comme je le dis man bu ma tëkkaleeg actuellement nii benn Dip wala benn Ngaaka. respect for real dañ doon su may su may su may ay référence lañ quoi Dip Doundou Guiss for real dama koy bëggee lu bari. Mhm. ku nekk am na artiste ah. mhm. dama koy bëggee te nangul naa ko li mën. mais mhm. billaahi wallaahi wa taalaahi Dip maa ko daa xarab man. ok loolu dinañ ci ñëw léegi ñu gis ci ñu ñëwaat actuel euh, ak euh, ci sa ci sa carrière musicale. ñu gis ne da nga da doon waajal benn single. waaw ak benn clip. tuddee ko Maay Waali xare vraiment ren. mais yow ñu gis ne yow rappeur buy woyaat que defoon nga ko fi ah 2017 ñu génn ñu gis nga génne benn sound. Africa tudd ci Africa. tudd Youssou Ndour xam nga Bercy nangam nangam. ñu ñëwaat deux mille deux mille vingt nga génnewaat beneen sound beneen single. Mm-hmm. tuddee ko Maay Waly Xale Faramare. ok voilà boo loolu naa ci sawara tontu loolu ah. <coughs> parce que boo xoolee euh, dafa am maanaam objectif dafa am principe loolu noonu dafa am cause aussi. da mooy cause yi. xam nga mooy cause yi. Mm-hmm. Euh, naa revenir un peu en arrière ci son Youssou Ndour yi ngay wax noonu ma ma tuddee woon ko Africa. Mm-hmm. yaa booba Youssou Ndour mi ngi doon waaj Bercy. boo dégloo refrain bi li ma ci wax mooy Afri Afri African Youssou Ndour gonna celebrate his events Bercy come support if you are proud to be African. African yeah. tu vois. Mm-hmm. Youssou mi ngi waajal Bercy. Mm-hmm. gaa nga support bu fekkee tey tu es fier d'être africain yeah. on peut pas parler la musique africaine sans autant mentionner le nom Youssou Ndour c'est une légende. Mm-hmm. mënuñ koo bañ. tu vois support la woon pour def ko man kenn ku li ngay def dama la ko ma si mënee jàpp dama si jàpp. man su ma mënee génnee son tey génneel la ko yow mii nii pour jàppale la système bi dama koy def. mu féetee boor ma ñëw ci waali bi quoi. maay waali man maa ko def pourquoi parce que dama ci sawar lool. un mooy man maay waali ci xale man maay waali ci gëm sama bopp man maay waali ci mën li may def tamit di ko def aussi te lijjantuma nit ñi pig yi may lancé wax yi ñuy wax tu vois whatever boo xoolee dafa doon nit koo xam ne. mais non am na am na ñu naan waali da ko woy juste pour xam nga mu woo la am lu mu la bokkal wala genre deme noonu am na ñuy wax loolu. non mais il se trompe. billaahi wallaahi wa taalaahi wuyu ma waali pour mu bokkal ma 5 francs. wax nga ko sànq da nga ne yow. Mhm. tu es porteur de voix. Mhm. yow. Mhm. da ngay ok n'est-ce pas. Mhm. waali boobu boobu noonu. donc ci loolu la wax actuellement waaw ci ci loolu nga toll ci loolu nga def moo tax ñu wax ci loolu. ci la ñuy wax actuellement nii moo tax dama ne la. waaw actuellement nii man am naa ay produits yoo xamante ne nii. Mhm. produits pur produits de sensibilisation mhm. produits yoo xamante ni sa parle de l' actualité. Mhm. yoo xamante ni ça parle maanaam xam nga presque. domaine yëpp da ciy wax. est-ce que comprendre. mais chaque chose aussi a son temps. yaa ngi comprendre man dama am aussi samay euh, samay principe yoo xamante ne ma koy teg. di ko def. Wally je l'ai chanté parce que je l'estime la l'adore dama ko gëm dama ko bëgg dama koy bëggee pourquoi parce que jeune la boo xamante ne nii man noonu laay doxee ko man nit ku nekk am nga référence mhm. yàlla sax suñu borom bi seppi na koo xam ne da ko teg ne kii moo leen gën malgré mhm. ñun ñëpp ay jaamaleen mu yonent bi alayhi xam nga lan moo bon ma taxaw fii naan diw neexu ma wala diw neexu ma yàlla bu la defee doomu aadama waroo bañ kenn yaa ngi moo def man dama koy bëggee pourquoi parce que wax naa la ko man jeune moom jeune la dafa gëm boppam dafa mën li muy def teewul am na lu nekk moo yuñ koy jote teewul ñu ngi koy sànni xeet teewul mu ngi continuer di def li muy def man loolu laa gëm dama am jaar-jaar comme moom kon man maay waari xale faramaaren bi beneen bi mooy doomu géwél piir tamit man rappeur faramaaren maa ngi nii waxoo hip hop galsen ah teewul mm. pour dire vrai amul doomu aadama ci hip hop galsen bi buy téye ma pëndal nday gémbe ba bàyyam réer ci poussière bi pour dire whatever bàyyi kenn moomul jéem bi moomul hip hop bi. Mhm. ba ne day taxaw di ma di ma wax na ma yow yaay def lii. wala waroo wéy ci wala yaay def lii amul kenn personne n'ose pour taxaw naan ma waroo def lii wala waroo def lee man maa wuy waaye mais mais mais attends mais attends hip hop tamit am ay normes. hip hop dafa am ay normes dafa am ay normes hip na norme yoo xamante nii bu ko génnee doontul hip hop. mais attends aussi bul jaawale. ñëwal man jeune ne me focalise pas sur le milieu hip kese. man je fais la musique. man je suis né artiste. tu fais de la musique alors. voilà man je suis artiste dans le sang. doomu hmm. géwël wax leen ko rappeur Faramareen baa ngi nii. ok waaw te moo ngi ñëw El Misia mu ne. dafa leer El Misia ñu ngi béggee encore une fois ah, di rafetlu encore ah ci jotaay bi di rafetlu ci leeral yooyu noonu yëpp aussi euh, dañuy ñëw euh, ci li nga xam ne moo di actualité wax nga ko sànq to be hip mean to be updated and relevant pour être hip hop il faut être à jour et pertinent ñu ñëw ci li nga xam te ne moo di actualité bi nga xam moom moo lëmbee adduna bi actuellement muy vaccin contre le coronavirus mm. en tant que porte de voix naka nga gisee vaccin boobu noonu euh, de la population voilà boo xoolee actuellement nii Euh, dañ toll ma jamono joo xamante nii maanaam kenn wóolootul kenn. Mm-hmm. ndax ñu bon ñi ñoom ñoo yàqal ñu baax ñi. Mm-hmm. tu vois bu ñu demee ba jamono ji toll na foofu nag il faut prendre des mesures day màtte wala du màtte bul dugal sa loxo quoi man lu laa gëm. Mm-hmm. vaccin yi nga xamante ne nii ñu ngi koy waaj indi fii nii gars yi jaaxle nañ jommi nañ waaru nañ. te nit euh, dina toll foo xamante ni peut-être bu xiifee xiif yenn xiif yi du gis du lekk. loo ko tegal après du sax réfléchir mais dañ ko war a saytu xool ko xoolaat ko balaa muy dugg fii nii balaa ñuy vacciner fii kenn. ñàkkut ñoom ñoo di ko indi ku corona si ñoom nañ ko vaccin foofu ñu xool test ko ba pare. parce que ñoom ñoo ñu ëpp ay cas. ñoo ñu ëpp mille fois. Mm. nañ leen ko vacciner ba pare. Mm. ñoom ñu soog ko dugal fii Galsen. Galsen nekkul ne kum neex ñu ñëw indi affaire wala jaar ci état ñu dugg fii non non non. ñu ay kaboy quoi comme ça mm-hmm. non non donc dañu waral li ma la ñuy wax nag mooy que waxoon naa leen ko waxaat na naa ko waxaat génne naa ci benn vidéo fay ci xaalis bu bari def ko clip daw na TFM daw na fépp pour sensibiliser nañu boole mooy toog muñ ak di ñaan yàlla buur bi rek ndax moom moom mun mooy kun fayakun mm-hmm. waaw dund boole ñoo ko lépp te xam ne fayaguñu jot na kon ñu boole xel ak xol bokk fu ñuy xool mais bu waa Saalum ne tànk nopp waa Dakar ne kol nañ xelaat boole xol yi jël yoon xalaat jiital corona mu dem foofu ñu soog a dellusiwaat dégg naa ñu naan na ku ne toog këram dégg naa ñu ngi naan ku ne toog këram borom kër mënu toog sa kër su boobaa du doon corona mais xiif moo lay tër nañu jël précaution yi yokk gel saabu omo artistes yi yokk son yi sensibiliser nguur gi def li ko war ginnaaw bi ñu naree tëj tool yi tere bay sa waar kese la amul leneen. maa ngi lay waxaat ci deuxième couple bi naan la maanaam. Mhm. sensibiliser le tout le temps. parce que mhm. faa ngay waxal aussi askan wi. nest pas. Mhm. benn noonu la ñu am coronavirus la nañ ko xeex sinon léegi ñu jeex ñaanuñu ko yàlla yàlla na yéex. gisuñ paj mu tax ñu war fa garu dégg ñi naan fóot la xol yi fete xol i ñaan te du dolli ñaan tiitaange taxaw na bu ñu demee bay tëj jumaa yi àdduna wërngal képp fépp ñu tëj man de maa ngi maa ngi ñaan ci bépp nit ñu defaraat to gaay jël suñu matuwaay mbàkke ñas si laay ngelawaay jëfe ndigal yokku tere jëfe ndigal bàyyi tere toog si kër te taal sa tere feebar bi amul médecin buy faj te faalewul sa tere jóg ci teel fi jóg jotee balaa kuy faam mbotee mbote maa ngi coronavirus te lu rey mu dee ok El Messi à tel réew mu dee we gonna jumping for the second tape xam nga wax nañ ci actualité bi nga xam te ne moo di actualité bi lembee àdduna bi mm-hmm. dañuy ñëw ci actualité hip hop galsen ñu gis ni ci 2020 bi mm-hmm. hip hop galsen dafa gën a dundaat ci mm-hmm. naka parce que gis nañ fi quatre albums yu mag ci ni ma ko mën a tuddee ok si euh, muy albumu Ngaaka Blindé albumu Samba Peuzzi albumu Purpose ak Leuz Diwane ci naka nga gisee loolu d'abord naka nga gisee album yi ni ñuy ni ñuy teglantoo actuellement ci hip hop galsen bon boo xoolee album yi ni muy teglantoo ci hip hop Galsen actuellement nii dina xaw a wàññi euh, ampleur album bu ci nekk bi waroon a am quoi. Hmm. tu vois parce que bu fekkoon ne benn album kese moo génn ñëpp dañuy daw suivre ko dina gën a am doole mais boo xoolee ay ay kuy mënuñ bokk mbalka tu vois donc bu kii génnee fii kii génnee fii album yooyu yëpp bu ñëwandooree pour gars yi gën ci mën a am genre concentration suivre benn album xam ne bi moo gën a dóob mhm. problème lay doon quoi mhm. mais ak euh, situation bi fi mu toll surtout corona bi xam nga mhm. te la culture aussi ku ne xam ne dafa ànd ak genre rassemblement affaire yi ñu tere bagage yu mel noonu ampleur day xaw a wàññeeku juste gis ne ci album yooyu noonu ñaari album moo ci gën a cartonné muy Secret Set bu Ngaaka Blindé ak Sénégalais Sénégalais Boy bu Samba Peuzzi donc soo ma doon defal benn comparaison entre album Ngaaka Blindé bi ak bu Samba Peuzzi bi ban comparaison nga ciy def. waaw bon boo xoolee albumu Ngaaka Blindé bi ak bu Sàmm posi bi loolu loolu euh, euh, yàlla ak yàlla la quoi. de un bokkuñ sax façon de musique. Mhm. bokkuñ musique quoi. Mhm. xam nga Ngaaka Blindé bon il fait du hip boo xam ne musique bi dañ ko dañ ko reconnaître. classique rap. tu vois mhm. classique bu deux gars yi kife ko. Sàmm Peuzé il est dans une autre facette musicale ñoom ñaar bokkuñ quoi bu leen tëkkalee duñ benn. mais ñoom bañ na ko ba boo xoolee hip hop Galsen hip hop Awards amul benn trophée boo xam ne jël na ko. Mm-hmm. moom Samba Peuzzi tu vois. pourquoi parce que tout simplement peut-être gars yi moom bon hitu wati fii la ah, moom lu mu lu mu lu mu fii lay def. tu vois mm-hmm. gis naa ko sax après dugg na Instagram bon teg ay dugal ay taasu maan ñu naan ko Samba neexu leenam ndax tege Galsen Galsen hip hop pour dire vrai que moom lu mu fii lay def bokkuñ kon moom bokkul moom mi ngi ci facette musicale am bien et je di ko ñaanal aussi jàmm ak salaam ci li mm. mais moom ngaa ko duñ benn ngaa ko la gars yi reconnaître naa ah, album bi moo mooy album bi gën a dóob et full respect foog ngaa ko blende. Mm. sànq maa ngi dégg nga naan ay. Mm. li nga kan bi nga jël moom mooy gën a secret set bu ngaak. moo gën a diib secret set moo gën a diib secret set bu ngaak wala diib en profondeur laay waxee quoi. waaw léegi euh, ban relation nga am ak ngaaka blindé ba tax nga naan lii nga xamante ni mooy sa kaan bi moo gën a diib secret set bu ngaaka blindé mais attention. Mhm. ngaaka blindé deux tomes la ñuy indil. Mhm. tome un bi déglu nga ko déjà seize titres la ak benn bonus track. si yëpp a mhm. yow nga ñëw nga ne. yaa gën a diib. ngaaka blindé fan nga teg loolu. <laughs> non mais juste teguma ko feneen euh, foo xamante ne nii gëm li ma lay wax la. man bon pour dire man je ne triche pas. billaahi wallaahi wa man lu ma tricher man li ma lay wax ça vient naturellement te dafa nekk ci man te loolu moo nekk ci man loolu laa gëm. c'est pas une question que loolu moo am déedéet buñ jaawale ñaar yooyu quoi li nga gëm ak li am duñ benn man dama koo gëm. dama gëm ne loolu moo am man loolu laa gëm man Ngaaka Blindé ne est fort je l'apprécie beaucoup dama koy déglu man boo bëggee dégg-dégg maanaam am na artistes yu bari yoo xam ne. diib bo diib dund gis ma lay wax nii dafa doon koo xamante ni dama ciy xuloo xuloo billaahi wallaahi wa taalaahi damay toog ñu naan ma yow fan ci diib nga nii ak naa et pourtant génnee naa son classe ko hip hop la wax naa ko ci benn son mënuñ juboo ci géew ne ñaari mbër yu dégg pip mais nag su xase tas zo daala war na seeti diib hip hop bi jàmm dong la et wax ko ak lu brit ku nekk na ñoo di king ni baaba mbaaru waa d'Afrique bu la dara jaral def nit lu bon ngir am lu baax la Messi di hip hop moo fi jaaroon na xel yi baax wareef la yeewu leen ñu doon benn yes you can star idol la ñëppay roy ci moom hip hop du haine hip hop is not a game man loo xam ne haine la raag la déedéet. Mm. whatever game la. Mm. kenn ku ne da ngay ñëw samp mbër làmb la quoi. Mm. teg seen dënd ne maa mën jaay affaire. mais bu jeexee jeex na. ego trip quoi voilà ego trip la quoi. dama koy dama koy shout up Dip gis nga Ngaaka Blindé dama la ñu flow jaamaan gars yooyu noonu mais whatever sama bopp laa gëm man. diib ngaa ka ñooñu ñëpp man maa leen daax rab man du ma seen morom. dafa am nga si plein droit dañuy des ci euh, actualité hip hop galsen ñu gis ki nga xamante ni moo di artiste de l'année aussi ñu jox ko ki nga xamante ni moo di. as boo xamante ni génn na tamit. Mm-hmm. prouvé def ay mm-hmm. euh, wane mëninam wane fi mu mënee wane na kat carrément. Mm-hmm. Euh, taxaw na donc yow nag nga gisee nomination bi nga xamante ni jox nañ ko ki nga moo di artiste de l'année as the best. franchement parlant pour dire vrai pour dire vrai il le mérite quoi. As mérito na euh, bon artiste de l'année parce que boo xoolee As doon na koo xamante ni il a prouvé xam nga du As jaar na flow up peut-être yàllaa ko joxul chance ba pour mu jël ko mais da daan dem ba final. Mm. tu vois di prouver di génnee di def ay son yu nice. waaw vois même Dip boo xoolee sax Dip dafa nangul As The Best. Mm. daf ko nangul te Dip il n'est pas un artiste boo xam ne artiste bu ndaw la. waaw c'est bon grand quelqu'un kon bu demee ba ba ñu jox loolu As The Best il le mérite quoi mérite méritoon na ko franchement quoi. ok ci Dip Doundou Guiss la des mm. parce que gis nañ ni Galsen Hip Hop Awards bi ba tey euh, Dip da ko daf ko boycotté. Mm. Ekil ak euh, Nidof. ak euh, Akhlou Brick Paradise ñoo ñëpp dañ boycotté woon gaal Galsen Hip Hop Awards bi. naka nga gisee Galsen Hip Hop Awards deux ans ñoom participé woon ci Galsen Hip Hop Awards bi dëggantaan est-ce que gisoo ne dafa am benn affaire bu laaxatu ci gannaaw wala lan moo tax tey ñi xam te ne ñoom lañ jàppee ténor yi di di boycotté Galsen Hip Hop Awards bon euh, c'est parce que tout simplement aussi bon euh, ñoom kenn ku ci nekk raison bi tax nga def ko yow yaa ko xam mm-hmm. mais keneen ku ci wax leneen aussi dëgër fit moo tax nga wax ko ñoo xam ne dañ ci doon connecté nekk ci sab si sab bu ñu demee ba génnee ci seen bopp ñoom xam nañ raison peut-être yi tax ñoom ñu def ko quoi parce que boo xoolee Dip sax jox nañ ko trophée bi. waaw d'ailleurs ci 2020 moom lañ jox euh, meilleur album solo moom lañ ko nominé mais na bëggul bëggul ah j'ai écouté un vocal boo xam ne mi ngi wax kii yem bi sax naan ko mun naa ko trophée bi nag boo ko saraxee sax mooy loolu ah mu ngi koy wax kon cela veut dire que bëgg ko mais am na ci plein droit bu ko neexee mun a bëgg ko mais j'aurais préféré aussi nag mu jël ko Mm-hmm. waaw je l'ai préféré mu jël ko parce que hip hop dafa yaatu. parce que yàgg na ko jël aussi yàgg ah. na ko jël. di am mm-hmm. mu ngi sama. sama néegu yaa jël boobu yokk ko sa trophée yi moore xam nga bu ko bañ quoi bul daw loolu noonu. hip hop la na yaatu man. ok for real man gars ñu leen xam ne ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy El Messia from Passy from Saloum. bon di connecté waxtaan bala ñoo tëj xam nga ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di drill. drill nekk benn musique boo xamante ni gis nañu hip hop da ko adopté. depuis pratiquement ba léegi le judo fi nga xamante moo di Chicago États-Unis mais gis nañu actuellement moom moo gën a jaay ci monde bi avec l' avènement de Pop Smoke Sixty si genre de ñu gis nañ ñëw na Sénégal bu mu dugg see Sénégal boo yi ko gën a firndeel muy waa Akatsuki Galsen Akatsuki SN ñu ñëw xam nga teglu nice ba xamal affaire yi lëmbee àdduna bi naka nga gisee drill bi Sénégal bon boo xoolee euh, drill biir Sénégal en tout cas il a bien frappé quoi. fëgg na fëgg bu dóob te suma réel nigis yi fa réel Akatsuki ñoo ko fëgg waaw ñoo tijji bunt bi ñoom ñoo ko pénétrer. Mhm. waaw nañ fexe ba xam nga buñ ko yàq quoi. tu vois na am benn continuité boo xam ne bu bu bu bu buy dem lay doon booy dañ doon booy yoo ne ils sont tellement talentueux que mooy loolu su may booy lañ. Mhm. te booy booy booy ñu ngi ñëw à suivre def nañu gën a dóob yooyu noonu. ce sont mes bros muy Mr Cash xam nga Element. Khalil Sori Lofisier gars yooyu noonu doon nañ ñoo xamante ni ak Talla aussi ils sont talentueux on se connaît très bien yàgg nañ dajee mbëkkante ñoom ak man ak ñoom si saa ça fait l'occasion ma waxaale gars yi aussi benn affaire mm. parce que yàgg naa dégg Messi arabul ñuy affaire yi patati day def leneen patati patata yàgg naa dajeeg ñooñu ci saa compétition yu tàng jër booy Akatsuki yooyu noonu. ñu mm. doon booy talentueux il ma connaît très bien rabu ma tey jël ay trophées hip hop Thiès waa maa jël seen compétition. Mm. Evolution Fest maa jël seen compétition. Mm. première édition 112 hip hop maa jël seen compétition Walfu TV compétition bu ñu mujjee teg devant la Walfu TV Blaise Senghor man maa jël compétition bi mais su ma raw lu may def waree ba ah. Thiès warabul looy def loolu dañ la koy laajaat bon juste xam nga dañuy descendi ci euh, hip hop. mënuñ dugg Saalum ba génn mënuñ invité nii boo xam Saalum la jógee ba génn laaj na sa relation ak artistes nga xam te ni ñoo ngi Saalum parce que gis nañ fa ay ténor yoo xam te ni actuellement ñu ngi ñu ngi pëndal Galsen ku ci mel ne Naara Pi Garcha Beg bro ah, ñoom Mojo Raji gars yi noonu yëpp ban relation nga am ak ñoom bon ñi ngay wax ñii ñëpp koo ci woowoon téléphone boo ko laajee boo na ko lay wax ñu ngi may seetaan télé xam nañ li li may wax bu baax mhm. Mojo c'est un ami c'est un frère suma bro la te daf ma nangul fu ma romb mooy loolu noonu Charab on se connaît. Mm. Naarab puis la fois passée on ci euh, sortie album mu El Maestro bi. Mm. xam nga dafa ma gis bëggee ma Charab ma parce que on se connaît quoi xam nañ ne ñoom artistes yi xamante xamante nañ suñu biir. Mm-hmm. tu vois am ak ñoom affinité boo xamante ni bu cool la te du ñooñu kese bari na ñeneen ñoo xamante ni mooy loolu. kon Saalum bon Saalum suma Saalum la passé sama passé la. ban message nga am booy tëjee wala ak projet nga xam te ni moom ngay waajal. voilà message bi may am bu may tëjee mooy que juste que ni nay nice nay rafet. Mhm. nay dóob nay nice di rafet quoi ñu gën a bàyyi xel ci euh, maanaam nekkin yi ak doxin yi parce que bon si ki ma lakkandoo quoi. Mhm. actuellement nii corona bi virus bi lëmbee na dëkk bi xam nga nañ gën a jël ay mesures de barrière xam nga gën a gën a gën a góorgóorlu gën a xoolaat li ñuy dugal suñ suñu réew mi quoi. parce que fii réewu Cheikh Ahmadou Bamba la réewu Maolana la réewu keneen ak keneen la buñ ko bàyyee gars yi dugg def ay vaccin affaire yu mel noonu quoi sois prudent waaw nañ gën a waaw góorgóorlu ci affaire yooyu noonu di shout out aussi di remercier aussi xam nga ñëpp ñoo xamante nii maanaam ñu ngi ci def ay affaire sensibilisation joxe ay xaalis pour affaire corona beeg yooyu noonu di shout out aussi suma town encore une fois muy Passima Fierté am from Saloum mhm. ak euh, waa Parcelles Assainies suma style cité amoo deux ñoom Babacar Babsou amoo deux gars nañu bégee di leen shout kenn ku ci nekk sa tur sa sant Euh, from Galsen from Saloum. ay borom Saloum Saloum ñoo fi daje. donc euh, Saloum la passé Saloum ci gan donc c' était plaisir di leen bëggee di leen jox di jage di daje beneen yoon incha allah di saaw daawul sama grand moo nekkoon ci gannaaw caméra yi Dóor waar Gatcho Beeg.